parce que man waa ji dama ne waxkatu dëgg mooy lu wolof njaay di ne fenkat mooy ku dul wax dëgg ma ne sàcc la sàcc mooy kuy jël lu mu moomul ma ne escroc la escroc mooy kuy luubal wala kuy jaay lu mu moomul dafa dem tribunal juge bi bu muy reporter procès bi man nekk moon tribunal aw moon benn avocat tribunal juge bi dafa reporter procès bi pour qu'il puisse constituer sa caution parce que dafa naroon fay xaw ma vingt cinq mille xaw ma cinquante mille pour procès mën a am pour wan la ne que kooku du waxkatu dëgg juge bi ne ko tu dañuy reporter pour constituer la caution il dit que man maa te report de du, du procès pour dama ko porter plainte moom ci doyen des juges parce que suma avocat dafa plainte d'abord ci procureur de la république moom balaa muy plainte damaa ko plainte ci procureur de la république mais comme procureur de la république day jaawale république ak APR donc avocat bi ne maintenant ñun dañuy dem ci doyen des juges mais man lu ma namm ci waxtaan bi du mais du waa ji man waa ji taxuma jóg parce que waa ji balaa Macky Sall di fallu Sénégal nekk président man mosuma dégg turam te bés bu fi Macky Sall jógee tamit noonu lay fayee c'est ce que j'appelle des accidents de l'histoire man j'existe avant que Macky Sall soit président du Sénégal et inchallah j'existerai après que Macky Sall quitte le pouvoir maa ko liggéeyal suñu bopp ma ñëw rek foofu lay daanale lu ma nam ci waxtaan bi mooy président Macky Sall laa bëgg xam est-ce que ci association de malfaiteurs bu nga xam ne ni loolu parce que loolu mooy association de malfaiteurs est-ce que daf ci laal am déet est-ce que daf ci yëg am déet beneen bi est-ce que ci ñàkk wax dëgg bi est-ce que daf ci laal wala est-ce que yëg na ko am déet ci mbiru lu may wooye escroquerie en bande organisée est-ce que président Macky Sall yëg na ko wala est-ce que lan na ci parce que Dakar Dem Dikk suuf jooju fu mu nekk lu ñuy wooye état des droits réels yow mënoo ko bind mënuma ko bind bark kenn ci ñun fi mënu ko bind état mooy wax parcelle bi diw moo ko moom dañu ne foofu fu Dakar Dem Dikk nekk dañu ne diw mooy état du Sénégal droit réel état du Sénégal la ko moom état du Sénégal du Dakar Dem Dikk donc état du Sénégal yoon mayu ko mu am sañ-sañ di jaay suufam da koy mettre à disposition à travers des permis d'occuper ou à travers des baux ensuite qu'on transforme en titre foncier après mise en valeur yow naka nga mënee jël suuf bu nga xam ne dañu bind état du Sénégal la ko moom yow nga ñëne da nga koy jaay mais waajooju moom Sénégal mi ngi indépendant depuis 1960 balaa Dakar dem dik di am amoon na Sotrac ñaata directeur généraux ñoo fi jaar kenn mosu fi jaay un carré moom mu bëgg a jaay tous le dépôt de Mermoz xam ngeen fan la bëgg a jëm ak ñun dafa bëgg a jaay dépôt bi yëpp yóbbu ko maintenant Diamniadio y a eu combien de directeurs généraux ci dëkk bi bu diriger Sotrac ba tey Dakar Dem di kenn musul jaay un mètre carré moom mu bëgg a ñëw jaay ambassade de Chine jaay APR jaay station essence jaay jaay jaay mais yaay kan ba di jaay da ngay jaay sa moomeel wala nga jaay ndono wala nga jaay sa ñaq soo jaayulee loolu lu ngay jaay da ko sàcc te ma may birilaat wax ji fii c'est un escroc c'est un menteur et un voleur maintenant ce qui m'intéresse mooy est-ce que le président Macky Sall a été informé ou est-ce qu'il s'est impliqué dans l'association de malfaiteurs ou le mensonge ou l'escroquerie en bande organisée mais franchement cet idiot heureux il m'intéresse pas